amuñu problème équipement sportif parce que souvent ñu bari ay maillot la ñuy may amna sax équipe yo xamanteni amna ñu ay maillot yu bari donc ñun suñu problème du maillot waye suñu problème moy nawetaan ni muy doxé ASC bi day am ay problème yo xamanteni da fay soxla xaalis pour régler problème bi xaalis bi wax nañ ma wax nañ ma sax problème bi ha ah, yi nga xam dañ koy soxla dañuy soxla entraînement dañuy soxla regroupement dañuy soxla yenen yu bari donc ñu ne ma soo mënon dal daal ci xaalis moo ñu doon gënal man leen man bugguma di jiital xaalis waaye comme wax ngeen te xam naa li ngeen li ngeen li ngeen bëgg euh, ma ne leen léegi li ñu waroon jënde mayo li ñu waroon jënde mayo dañ leen koy jox xaalis su boobaa euh, li ngeen am ci xaalis bi ngeen jël ko régler seen i problème moo tax dañu jël ASC bu nekk ñu jox cent mille francs ASC bi jël cent mille francs jox ko comité supporter bi parce que souvent nag dañu doon fàtte comité supporter bi ci quartier yi di ket ñi leur leen jox 1000 francs ñi leur leen jox 100 francs ñi leur leen jox 200 Moi tax ñu ni comité de supporters ils ont ñoom ñooy regroupement yi ñooy togg añ yi euh, ñoom ñooy faire euh, affaire transport bi moo tax ñu ne dañ leen di jox subvention parce que souvent dañ leen di fàtte lii nag dañ ko commencé est waaye Inshallah, dinañ continuer commune nord dinañ ko continuer aussi commune ouest. Wa, wax naa leen euh, parmi les messages yi ma lancés, di lancer wax naa leen message bi mooy.

que les problèmes sont très toujours compliqués quand c'est les mêmes familles Moi, je man leen faire de affaire violence matuko, je joué leen rek privilégier, privilégié les plus faire play